asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mbokk yi ñuy seetaan euh, di ñu topp fu ñu mën a nekk ci seen seen télévision Moukhaddamatoul Khidma TV ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii ci daaw me Daawme me nag am histoire bu am solo boo xam ne am na ko ci yoonu murit ndax sëriñ bi ci boppam bindal na boppam ne daaniya rahimu inda Daawme lahu bi ma axna ani tasawmi liggéey boobu nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi ko doon def muy euh, sur les traces du Seex muy topp jéegoy sëriñ bi liggéey boobu moo ñu indi fii ci Dahomey ñëw nañu fii le 9 ci 4 heures du matin wàcc ci aéroport Cardinal Bernard euh, bi nga xamee ne ñëw nañ ci dëkk bi nag fii di Dahomey li ñu fi gën a jàngat ci dëkk bi mooy climat bi climat bi dafa sec xaw naa xaw naa tàng tuuti beneen bi euh, gis nañ ne wàllu économie commerciale wax nañ ne marché bi gën a rëy ci Afrique sowu jant fii la nekk euh, li ëpp solo nag ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu commerce bi ak économie bi mooy jigéen ñi surtout ci wàllu njaay ak jënd loolu it fees na fi wàllu transport tamit fees na fi mais transportu moto lañ gis ne moo fi gën a fees ndax ñoom ñooy transporter nit ñi ñooy def taxi di yóbbu nit ñi fu ñu mën a nekk. Euh, niki noonu nag euh, dem nañ ci port ci Porto Novo nga xam ne mooy dëkk bi nga xam ne fii la sëriñ bi wàccoon ci port boobu dem place Bayot. Euh, dox dem ci euh, fi ñuy wax prison civile maire bi nga xam ne nag mooy maire wu Porto Novo recevoir na délégation Moukhaddamatoul Khidma euh, bi ñu àndaloon nga xam ne ñaari mbir am na ci dañuy def liggéey ngir réaliser suñu liggéey boobu waaye nag ci wàllu diplomatie waxtaan yu am solo am na fi ci yoo xam ne jur na ay njariñ yoo xam ne incha allah similage entre Touba et Porto Novo mën na cee juddoo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi fii ci Porto Novo ci Benin euh, ñaw ngir euh, visiter waaye seet itam jeexit yi nga xamante ne sëriñ bi bi mu fi jaaree bàyyi na ko fii euh, moo tax ñu ñëwoon fii tey délégation bi bàyyi tuuba ci daayira Muxaddamatul Xidma di benn kuréel boo xam ne ñooy saytu lépp loo xamante ne dafa aju ci jumaa yi ji waaye itam ak liggéey yu yaatu yu bari yu aju ci wàllu xam-xam ak culture yoo xam ne dañ koy taxawee moo tax ñu ñëw fii tey ngir saytu ak topp jéego yi nga xam ne sëriñ bu mag bi bi mu dem ci tukki bi ci bi ko tubaab yi di génn dëkk ba jaar na ko ci ay barab ñu ñëw fii tey ngir loolu xam naa ngir bañ a guddal lool damay jox kàddu gi kenn ci ñi nga xam ne moo jiite délégation bi ak ñi mu àndal muy sëriñ Abdou Lahad Bousso xam na moom day wax ci eh, wolof bu ko defee ma jéem ko tekkil li muy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi lay nuyu kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci jotaay bi yëpp di nuyu maire bi ak mboolem yi nga xam ne ñoom lay liggéeyandoole eh, di leen jottali itam nuyoo yi nga xam ne ñoom lañ bàyyi Touba ndax dañ fay ñëw ngir liggéey ci eh, yoon nga xam ne ak saytu tànki sëñ Tuubaa yi nga xamante ne jaar na fi waaye itam dañ fay ñëw ngir teewal fii eh, yoonu murid yëpp ci kenn ca bopp ba di Cheikh Sidi eh, Mouhamadul Mouhamadou Mountakha Mbacké nekk xale général des mourides ñu ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ñëw nañ fi ci turam Euh, ñëw fii itam ci tuub mboolem ñi nga xamante ne ñoom lañ bàyyi Touba ñu nekk ci ay kilifa ci yoonu murit euh, ñu ngi ne ñu ngi nekk jiite ci benn daayira boo xamante ne kuréel la gu xam nañ mooy saytu barab bi gën a mag ci Touba muy euh, jumaa ju mag ji ndax Touba dëkk bu sell boo xamante ne jumaa ji mooy dafa ëpp solo itam ñun ñii la ko la ko la ko sëñ man mii di wax ak yow maa ngi tudd Abdoul Ahad Bousso maa jiite euh, euh, commission bi nga xamante ne mooy euh, saytu lépp lu aju ci wàllu xam-xam ak tasaare ko eh, ci kuréel boobu ak di tàggat ay ay ay ay imaam ak ay noddukat ak yu aju lépp lu ci wàllu xam-xam daal ak tàggat ñi nga xamante ne ay nit lañ ci wàllu xam-xam loolu maa ko jiite. Eh, daayira bi nga xam ne moom la nekk itam daayira la boo xamante ne day eh, yëmut rek ci yor jumaa ji ak di ko saytu waaye daayira la boo xamante ne itam kuréel la gu mag koo xam ne eh, événement bu mag boobu nga xam ne moo nekk Magal Touba ñoom ñooy saytu mboolem ñi nga xam ne ay délégation la ñuy jógee ci yeneen dëkk yi te seeni mbir aju ci wàllu diine ñoom ñoo leen di saytu di leen dalal ñoom leen sëñ bi dénk ñu leen di saytu ak yeneen liggéey am na yeneen itam barab yoo xamante ne ca dëkk ba yu am solo la yoo xam ne ñoom la ko sëñ bi dénk ñu koy saytu eh, ci gàttal daal xamal ne na maanaam mbo mbooloo mu am mu am solo la moo xam ne seen taxawaay ak seen wàccuwaay ci eh, Touba ñëpp xam nañ ko ñëpp ràññee nañ ko moo tax ñëw fi ci turu xale général de Mouride ñëw fi ci turu mboole Mouride yi fii ci Porto Novo ngir Euh, am ak lëkkaloo ak euh, saytu jeexit yi nga xam ne Sëñ Tuubaa bàyyi na ko fi te yéen ngeen nekk kilifay dëkk bi jiite ko ñu ñëw fii ngir ngeen gën a bàyyi xam ne Tuubaa itam moo porte na yoo xamante ne mën nañ koo seq mën nañ ko euh, ànd maa ngi ànd ak ku ñuy wax sëñ Abdou Khadir Bousso mi ngi nii moom mooy jiite moom mooy kilifa lépp lu aju ci wàllu communication ak saytu am na télé bu mag boo xam ne moom la ñuy wax moom la ñu àndal itam moom mi moo ko jiite mooy dé moom mooy eh, saytu lépp loo xam lu aju wàllu image la dañuy def tamit ay direct ci lépp loo xamante ne day xew ci biir jumaay Touba ja télé bi mooy télé boo xam ne mooy bu officiel bu jumaay Touba moom mi mooy jiite lépp lu aju wàllu communication ak yi ci aju sëñ Ba Xaadir Bousso waaw dama bëggoon a am lu ma dolli rek ci biir loolu si wax ndax ñoom ñii ñoo am kàddu gi ñoom ñoo war a ñoom ñoom lañ war a jox kàddu gi waaye dama bëgg rek nga xam ne ñii nga xam ne ñoo fi teew am nañoo ko ba tey euh, sëñ Abdou Lahad bu ni mu ko waxee kii mooy sëñ Abdou Khadre Bousso moom tamit di kilifa euh, waaye boo xoolee man maa ngi ànd ak vice consul Cheikh Sadibou Cissé waaye maa ngi ànd ak itam Lamine Cissé moom mii bindkat la bindkat la moom waaw waaw fii nekk ci Porto Novo fii la nekk ci Porto Novo euh, waaye dama bëggoon a dolli rek xamal la ne la euh, dañoo man ville la boo xam ne comme Vatican rek comme Vatican bu ma la doon jox misaal ca itali nga xam ne ñoom seen mbiru bopp lañ yor doon du benn réew ci biir réew waaye am nañ benn organisation benn saytu ak benn. Euh, doxalin boo xamante ne daal wu am solo la moo tax du du dañoo am xalif général dañoo am koo xam moo jiite dëkk ba jiite dëkk ba jiite ñi nga xamante ñoo fa nekk yëpp ngir dolli ci li nga xamante ne moom la sëñ bi doon leeral léegi ko ci comme ci comme Vatican loolu man noonu laa loo ko mën a mën a misaale dëkk la boo am xam solo la waaye nag nga xam ne itam Touba ak euh, saxal bokk na ci li saxal jàmm ci biir Sénégal ndax boo xoolee Senghor moo nekkoon premier euh, président bu Sénégal nekk chrétien soxnaam nekk chrétien waaye teewul waa dëkk ba jàppale nañ ko surtout kilifa ga nga xam ne moom la jamonoonteeloon jàppale ko Abdou Diouf noonu moom jullit la soxnaam chrétien la waaye teewul ñu jàppale ko Abdoulaye Wade moo topp moom it moom jullit la soxnaam di chrétien waaye teewul ñu jàppale ko pour xamal la nag dund bu am solo wala jàmmoo gi nga xam ne moom lañ nekkee ca dëkk ba moo fa am itam nga xamante ne day nekk loo xam day suuxat jàmm comme ni nga xam ne noonu la Sëñ Tuubaa mi sos dëkk ba noonu la doon doxalee moom communauté bu am solo murit gi ñooy daanaka mbooloo mu fi ëpp doole ci Sénégal ci wàllu économie ak ci wàllu yu bëree baree bëri moo tax loolu xamaale ko ci day am solo moo tax ma bëgg ko leeral waaye ñoom ñi ñoo am ñoo am kàddu gi ndax ñoom ñoo ñëw ngir def ci liggéey bu mel nii man maa ngi fi at ak juróom-ñeent ànd naa ko yéen maire bi di liggéey yéen xam naa seen ay man-man xam naa fi ngeen toll xam naa li ngeen mën a apporter ak li ngeen mën a jaxasoo waa dëkk ba waaye xam naa itam yi nga xamante ne mën ngeen koo séq ak Touba ci wàllu a ci lu am solo loo xam ne man ngeen mën ngeen koo def kon xam naa dañ leen di bàyyi kàddu gi ngeen ngeen présenté wu wax bu defee jox leen kàddu gi ngeen wax ak ñoom man maa ngi tudd Omar Laatikour Rachad euh, sama yaay mi ngi moo tudd Rachad kon ci sama turu yaay woowu da ngeen cee xamee ne man jullit laa maay topp ci maire bi maay premier adjoint maa topp ci moom euh, kon dama leen di wax salaamaaleykum euh, man maa ngi tudd Isabelle Euh, di secrétaire exécutif bu mairie bi maa fi ma ma maa jiite wàllu secrétariat bi ak li ñuy anoom liggéey ci wàllu administration Bonjour à toute la délégation. Moi c'est Diassou Marie, je suis chef service lépp loo xamante ne dafa soxal wàllu euh, population bi euh, ci lu aju ci wàllu culture ak lu aju ci wàllu patrimoine mooy li nga xam ne ñëpp ñoo bokk loolu maa ko fa man maa ngi tudd sonction de la rue sanction <laughs> euh, de la rue maa ngi tudd maa ngi nekk euh, ki jiite euh, service yi nga xamante ne moo aju ci wàllu décentralisation ak wàllu intercommunal intercommunalité loolu maa ko maa ko maa ko maa maa jiite maa ngi tudd Jofal Assar nekk responsable bu aju bu buy saytu lépp lu ci wàllu communication bu dëkk bi ak euh, presse euh, euh, maa ngi tudd Charlemagne Nicouty man ma comme Senghor rek <laughs> ni ngeen ni ngeen waxe Senghor Euh, maa ngi euh, xam ngeen sama turu bu ngeen ko déggee xam ne man chrétien la ab euh, chrétien la maa ngi nuyu xalif général des Mourides di nuyu itam délégation bi ci turu suñu blaax ñu ko jiite. li ma fi dégg ci ay kàddu nuru na ne Touba ak Porto Novo bokk nañ yu bëree bari yoo xamante ne lu aju ci wàllu cohabitation lu aju ci wàllu. dundinu nu ñi ak yéef ak chrétiens yi ni ñu dundee ci wàllu jàmm ndax boo duggee Porto Novo da nga fi fekk ay ay jàkka da fi fekk ay église da nga fi fekk yeneen yu bëri daal yoo xamante ne nuroon na ko a Touba kon lëkkaloo ak jaxasoo bi nga xamante ne e, ñëw ngeen fii ngir di dox tànk yi di saytu fi bi jaaroon ak sëñ Touba nga xam ne nit ku màgg-màgg la boo xamante ne adduna euh, wépp ko war a xam Afrique gi la doon liggéeyal kon yemu doon foofu rek kon ñëpp ñoo war a euh, ñoo war a xam loolu waaye fii itam ñun war nañ koo xam ndax am nañ euh, teraanga ju mag ndax jaar gi fi Sëñ Tuubaa jaaroon te comme ni ko kii mbokk mi waxee léegi Sëñ Tuubaa mu jaaree fii ay jigéen jox nañ ko fe ay parfum mu nekk dëkk boo xamante ne dëkk bu eh, da mën a dalal gan la bu mën a teeru ay nit bu mën a teral bu mën a teralaate Touba itam loolu lañ fay saytu kon bokk nañu bëri yoo xam ne nuroo nañ ko yoo xam ne war naa mën a tax Touba ak fii ñu am ay jokkalante ak seq ay liggéey yu bari yoo xam ne war nañ koo mën a am kon loolu danañ leen ko ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy nangul bu baax di leen tatagal di leen dalal xam naa bu ngeen génnee mën ngeen a jaar mën ngeen visiter dëkk bi comme ngeen jaar ci mbedd mi nga xam ne moo ne ci ginnaaw mairie bi continuer wala ngeen jaar wala am na sax yeneen yoon yoo xamante ne waaw voilà mën nañoo jaar ci yoon yooyu ba nga xam ne danañ dem fi ñu bëgg a dem yëpp visiter fi ñu bëgg a visiter yëpp bu ko defee euh, am na ci barab yoo xam ne daanaka ñëpp xam nañ ko ndax dañ fay def ay événement di fa fàttaliku jaar jaaru ku mag góor gu màgg googu nitu yàlla googu nga xam ne mooy mooy Sëñ Tuubaa kon daal maa leen xamal ne jokkoo bi ak jaxasoo bi ak ànd bi yëpp ñu ngi koy rafetlu parce que itam ñun déplacé wu ñëw Touba itam ngir li nga xam ne moom la ñu war a séq ak waa dëkk ba ak li nga xam ne moom la dëkk bii di Porto Novo ak dëkk ba bu di Touba li ñu war a séq ak kii jëflante yëpp ñu mën koo def. loolu xam naa moom danañ ci kii après incha allah bu ko defee kon xam naa dañ leen boole ak ay yi ngeen dugg ci dëkk bi yi ngeen bëgg a visité fi ngeen bëgg ki kii yëpp ngeen jaar fa ko defee ñu ñu ñu ñu dellu si waat nag ngeen door a liir ci liggéey yi nga xamante ne ñu ko war a ànd ok waaw noonu baax na. allahumma ya quduusu salli wa sallim wa barik ala man nawaytu an na'buduka bi xidmati li wajhika alkarim fi tuuba wa fi daari salaami wa fi daari lminnani wa fi daari lquddus farani lsalaamu walmannaanu تفريح باق عنده الجنان فراني السلام هو المنان تفريح باق عنده الجنان recevoir recevoir nañu tamit seen saasu dëkk kilifa dëkk bi nga xam ne daanaka jege na téeméeri at moom it recevoir nañu ay personnalités yu bëri directeur cabinet président assemblée nationale ak euh, ki nga xam ne moo jiite province bi président province bu bu bu bu Cotonou moom it euh, recevoir nañu dem nañu visite musée bu am solo bu fa nekk boo xam ne sax borom musée bi jëmmi sëriñ bi ci boppam sax def na ko fa ak photo yu demee noonu. am na tamit liggéey bu am solo boo xam ne délégation bi def na ko biñ ñëwee fii mooy ànd nañ le consul sénéral bi nga xam ne moom moo ñu dalal monsieur Ibrahima Sow. loolu nag ñu ngi sant sëriñ Modou Mbacke mu Cheikh Abdoul moom mi nga xam ne ci moom lañ jaar ngir mu boole ñu ak moom. Euh, euh, yebal fi doomam mu jiitu suñu aussi sëriñ Xaadim Mbakke sëriñ Moodu Abdul Ahad ak euh, bokk yi nga xam ne ñooy bokki taalibe yi nekk fii yëpp ñu taxaw ngir loolu am kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne def nañ ko fii ci Bénin di capitalu Bénin di Cotonou ñu gënoon koo xam ci daw mi incha allah dañuy continuer liggéey bi war nañoo dem Togo war nañoo dem Côte d'Ivoire war a dem Guinée Guinée Conakry kon ñu yamande fii di leen dig daje ci yeneen dëkk yi ñu war a dem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu